mbokk internet yi nga xamante ni yéen bàyyi xel saa su ne jotaayu xam-xam bi nga xam moom lañ leen dégtal saa su ne ñi a baax ñëwaat beneen ak ki nga xamante saa ne mi ngi ñuy ubbil bunt yi di jël waxtoom ak jotam yëpp ko jagleel askan wi ci dimbali leen ci xeeti turu yàlla ak secret yi nga xamante ni moom la fi suñu borom bàyyi ak mag ñi di seen Cheikh Ibrahima moom lañu fas yéene àndalaat tey ci biir jotaay bi ni ñuy def rek mooy dañ koy dal di nuyu siyaar ko waaye daal di koy dal ci biir jotaay bi ne ko salaamaaleykum wa rahmatullah sëñ Cheikh aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu wa inniya uisuha bika wa suriyataha min aseytaani rajim rabbi auzu bika min amasati sayatin wa auzu bika rabbi an yaqdurun bismillahi arrahmani irrahim wala qawla wala quwata illa billahi aliyil azim bay taala ñu ngi lay fay nuyoo di nuyu mbokk yi ñuy suivre ci biir réew mi ak bitim réew leen wax ni waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jërëjëf sëriñ Cheikh Ibrahima Ndiaye alxuraan ci nuyoo bu am solo boobu macha allah rabbi yal na yàlla dolli def tawféex te may ñu ñu fekkee waat yeneen jotaay yu bëree bëri bëri ci daraje yonent yàlla Muhammad waaye tam di ziare waat bu baax a baax di la ndokkeel ci safar gi nga xamante ni tàmbali nañ ko di waajale tamit bés bu mag boobee macha allah rabi di ñaan sama borom yóbbuñu ci te lépp luñ ci naalal sëriñ bi rek sama borom may ñu kattan ak wér ak wérsëg ba ñu ñu bëggoon tey ji gannaaw bi nga xamante ni suñ jotaay yi weesu wax dëgg yàlla ak xéewal yi ngi ci def kenn ku ci wax dëgg yàlla ñi ngi jot commentaire yu bare bare ñoo xam ne ñi ngi am mbégte bu baax a baax ci dimbali ngeen na ñoo xam dinañ tudd seen tur jeexal yu ni mel waaye fa ñu jeexale woon keroog laa bëggoon ñu tàmbalee tey ci xeetu turu yàlla yi nga xam ne joxe nga ko ba am ci ay confirmation yoo xamante ni am na waaye bala maa ñëw ci loolu rek ma bëggoon xam ndax tey jii am na turu yàlla woo xamante ni mën naa teggil nit ay coono fii ci àdduna bii ñu nekk ndax gannaaw ne yàlla yi moom lépp daje na fa. Mhm. waaw booy taala nit ñi mhm. laata leen suñu borom bind. Mhm. xadratu ilahiya ay malaika ñoo fa nekkoon ak ay jinn bi suñu borom bindee aras ba pare daf ko yëkkati yan ko juróom-ñetti malaika malaika yooyu bi aras diisee ci ñoom lool bu ñu bëggee mu woyof ci ñoom dañoo déclaré suñu borom dañ koo xamal ni ko lii amuñu kattanu yanu ko wentu mm-hmm. yàlla yàlla yëkkati jox leen ko mm-hmm. bañ ko takkoo ci sàbbal suñu boroom aras dafa oyof ci ñoom ba tol ba mujj na ñoom ñu jàpp ne yenuñ dara mm-hmm. mooy juróom-ñetti malaayka yi yenu aras ma ne bi aras diisee ci ñoom biñ jàmbatee suñu boroom yàlla buñ leen joxee turu yàlla ñuy sàbbal suñ borom ci tur yi dafa mujj xoros oyof ba mel ni yëreetuñ dara ñoom tur woowu nag nga xam ne mooy yenni malaayka yi ay coono nam ko defalee malaayka yi noonu la koy defalee mboolem lu yàlla bind bu yenoon loo xam ne dafa dis ci moom rek amul tur yàlla koy yenn ñu ca gën a gaaw tur woowa ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci xaddis alquran indi aaya ñu ne jullit bi boole woon jëfam yépp yow moo ko yam ci kanamu yàlla teg ko ci balance ñu yëkkati tur woowu yàlla joxoon malaayika yi yan woon aras ñu koy sàbbal teg tur wa ci balance mu wat seen yunni ko mën amul ci diisaay ci poids ci nattukaayu yàlla mm-hmm. tur woowu waxtaan tey te mooy baatub subhaanallahi malaayika yi nag indi nañ ñeneen ñen ñetti tur yuñ ko accompagner di ko boole ak moom te mooy subhaanallah walhamdulillah wa laa ilaha illa allah wallahu akbar dinaa développé subhaanallah li muy dindee nit koo xam ni dafa dugg ci lu mënul wala lu mu xamul wala ku yema lu mu attanul ku nekk ci loo xam ni daa dem ba yaakaaram jeex ca loola kon baatub subhanallah mooy solution ci mbooleem loo xam ni dafa tegu ci kaw doomu aadama bi te attanu ko bay taala subhanallah nag xissa bii ma la ciy wax Seydina Jibril na toog ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nettali ko ko ni ko malayka yi yanoo aras bañ diisee ci ñoom baat bii lañ doon sàbbaal mu weef toy te muy subhanallah wax ko ni ko aadama ba ko suñu boroom bindee def cay ca aju yépp ba jugee toog kaddu gi njëkk a génne ci làmmiñu aadama mooy walhamdulillahi te mooy alhamdulillah aadama li nit njëkk a wax doomu aadama li njëkk wax mooy alhamdulillahi laa ilaha illa allah sayyidina jibril ni yonent yàlla no gannaaw ba nga xamee ne woote na wooteem bu yàgg ba doomu aadama yi si wuñ ko suñu borom da koo digal ni ko woo leen ci tawxid te mooy ragal yàlla ñoom laa ilaha illallah la leen joxoon moo ràmm ña ca jot a ràmm ña ca des la ca xew téere indi nañ ko bay taala mu des allahu akbar mi ngi ñëw ci yonent yàlla ibrahima alayhi salaam keroog ba nga xamee ni natt ba wàcc na ci moom mooy suñu borom reyloo ko doomam sidna ismail keroog ba nga xamee ni nag bisul lu dul ñu rey ko Seydina Jibril mii nettali wax ji moom la yàlla yónni am xar mu indi ko remplacé ko Ismaïla jëf xar moomu keroog bi Ibrahima rendee bu pare gis ni doom ja teganee mu seenum xar teganee tudd yàlla gënul tudd yàlla mooy allahu akbar léegi nag benn bu ne indil naa la fa mu déparé bi ñu ko nettalee yonent bi ba pare nag yonent bi moo ci teg baat yi mooy wala xawla wala quwata illa billahi al aliyul azim wala xawla wala quwata illa billahi al aliyul azim yaa ngi dégg baat yi ci yenent bi teg nee nañ mboolem jàngoro ju dal doomu aadama mën nga ko cee faj ba ci jàngoro ju mag ji muy gaana gaana xam nga gaana moom Sénégal ne nañ kenn mënu koo faj nee nañ laa la wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim mm-hmm. bépp doomu aadama boo xam ni saxoo nga di ko sikkar ci sa biir kër feebar bu wàll wàllee du fa dugg su ne nay corona bi gars yi dañ ko waroon a jël test yi ma leen jox mooy laa xawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim képp ko saxal sa biir kër di ko liggéey alfun junni bala nga tëdd feebar bu wàlle du nekk ci yow du nekk sa njaboot kon nit ñi lañ jël képp koo xam ni nekkati nga ci jaaxle ba nga yenneeku ñeenti baat yi ngay boole mooy subhanallah walhamdulillah wa laa ilaha wallahu akbar daa am nañ koy liggéeyee boo ko day werd da ngay werd subhanallah junni alhamdulillah junni laa ilaha illa allah junni allahu akbar junni boo paree boole leen ñoom ñëpp werd leen benn junni mooy boo paree boole leen subhanallah walhamdulillah wa laa ilaha illallah wallahu akbar di def noonu benn benn ba mat junni nga xam ne nga koy dóor benn benn ba mat junni boole leen ñoom ñeent def ko benn junni am juróomi junni ci lim bi wala xawla wala quwata illa billahi al-aliyyil azim nga indi ko moom wer di ko téeméer tëjee ko waaw lii képp ku ko saxoo ci sa adduna doo nekk ci doo faatu mukk te bàyyee fi loo xam ni ndono la dina dal sa njaboot maanaam sa njaboot gi lay doon ñu wóor ñëw sa dund moom moom sott na pare waaye sa njaboot gi lay gi lay ci kaw suuf faw nga bàyyi leen fi ndono leen day lu day nag sa dund jëfewul woon waaw baax na kon boobu laa indi pour pour premier. sëñ Cheikh li ngay wax ni dafa am boobu bu ma ko xoolee dugg naa ci ay dëkk ci ay réew fii dama doon gis mag ñi dañ doon jël seeni dund kër. dund at mi yëpp dañ koy teg ci benn bërëb doonul loo xam ne dañ koy xëy di ko wuti ci au jour le jour comme tey ni réew mi di dundee. waaw xam nga mag ñi ñoom dañoo wéeru woon ci yàlla mi borom jàmm te yàlla nag ku ko doy la rek am lu doy. mu lay laaj lu doy yàlla dong nga ku wéeru ci yàlla nag yow da ngay daal di far am lu doy yi mag ñi dañ daan bay di dundee. suñu bayee jëfee ndigal yàlla ci mbay mi mooy génneel ko zakkaat suñu baree nag ñoom yoroon nañ seen i code ak seen i secret seen jamono suñu jamono jëne gaa dañoo bëgg a ña yoroon wóor nañ ndax gis nañu résultat yi waaw ñoom moom amoon nañu résultat ñun ñit suñu jamono jii ñu jaar ci yoonu yàlla te wéccee wuñ dara am nañu résultat ndax suñu borom du fi jóge mukk jamono jën nag ak ñun dénk jamono ja wax naan la suñ borom moo tànn ñi nga xam ne ñooy tuddkati yàlla yi dénk leen àdduna loolu leeral naa ko ci ay émission yu bari noonu ñu leen ko dénkee nag mbooleem ñu dootu ci àdduna bi képp koo xam ne am nga soxla soxla ba lu mu mën a doon nga waxtaanee ko koo xam ne yor na turu yàlla turu yàlla wu ne dafa am lu muy manipulé bu tax fa ñuy wootee kenn ku nekk di wax soxlaam soxla yi wuute ñu naan nu sëriñ bi fajee soxla bu ne fi mu ne daa am ci jëm waaw dem na ba àgg ci ñaan nit ki bu la woowee dina ñaanloo réew mu nekk sax day joué ci ñaan gi tur yi tudd sax day joué ci ñaan gi heure bi mu la woo sax day joué ci ñaan gi ndax loolu lépp ay rawxaan ñoo koy manipulé réew mu dëkk nekk di la woo day joué ci ñaan gi tur yi mu tudd moom mi woote di ñaanloo day joué ci ñaan gi waxtu wi la woo di la ñaanloo waxtu woo day joué ci ñaan gi. yëf yi yombul nekk defee tur yàlla rek moo mën a dimbali nit. loolu neex nag mën ngaa jàpp waaye fu ngeen jëmadul sore waaye li doomu aadama di jàpp te mu koy yóbbu ba mu àgg. ci boromam li koy dimbali fii ci àdduna ak àllaaxira ismulaay azam la asbaabu risq nag am na alxuraan indi na asbaabu risq juróom benni aaya yoo xam ni mooy sabab yi nga xam ni moom doomu aadama bu ci nekk suñu borom da koo war lul wërsëg asbaabu risq sax ci ñaan nit ki boo ko nattee benn bu ci am rek mën nga koo ñaanal ci ismulaay azam waaye ku ci nekk ci benn nag moom du neex a ñaanal ci course ci course juróom benn exemple yi bu dajee benn bu ci nekk ci nit ki ngay ñaanal rek boo ñaanee mu nangu waaw nit ki ngay ñaanal bu amee ak ragal yàlla boo ko ñaanalee ci course mu nangu su dee ku tukki boo ko ñaanalee ci course mu nangu su dee kuy bari lu muy tuubal yàlla la boo ko ñaanalee ci course mu nangu bu dee kuy julli waxtu juróomi la soo ko ñaanalee ci kurus mu bu dee ku wakkiiru ku doon yàlla la soo ko ñaanalee ci kurus mu nangu bu dee ku bari lu muy dox mbokk kuy doxu mbokk la boo ko ñaanalee ci kurus mu nangu bu dee ku boole aj ak ah, ak euh, umra ci benn at soo ko boole soo ko ci kurus mu nangu yaa dégg bu dee ku bari lu muy kuy seeti way feebar la boo ko ñaanalee ci kurus mu nangu yii dafa bokk ci sababu ismilal enzem nit ki ngay ñaanal benn buñ ci manipulé rek yow mën ngaa jaare ci booba ñaanal dafa mel ni li yi nga lim nii dama ciy déggaat fii ne keroog bi ñuy waxtaan danga naa maan fi mu ne ku tukki moo ku jihaatu jihaatu nafsi la fi mu ne dafa mel ne parce que li tax lim yi nga ñi nga lim yëpp moom rek moo ci doon koo xamante ni <laughs> bokkul ci yéen moom aayaam dafa am fam suufi manaakibihaa wa kullu min rizqihi man ba nga ko doon génne ay yi damay bañ ni perte temps waaye benn ba na mën na laa indil fi ko alxuraan wax ba leer nañu yaa ngi dégg waaye temps laay njëkkante moo tax man limee ko nii parce que émission bi comme ñu koy topp daa bari te temps bi dañ ciy kaas ki tukki li tax soo ko ñaanalee mu nangu tukki googu da koo def ci ndigal yàlla nit koo gis mu tukki rek am na yéene yéene jooju nag muy wuti ci ngay jaar yow dugg buntu la yaa ngi dégg soo ko ñaanalee ci kurus mu nangu noonu la kurus bi di doxee ci ismilal ahzam noonu itam la aayay alquran yi di doxee nañ ko wax ci biir ndax am na question mais dama ni ñi nga xamante ni si nii dañoo nekk ci am njënd ak njaay nekk bitim réew ñoom am na ñaari aaya yoo xam ni suñu xamoon ni noonu la gaawee ci am njaay ñëpp lañuy bàyyi seen liggéey Europe di jaay ñaar ay yooyu boo ko yoree ak tur yàlla yu àndal di jaay ci biiri nasaraan loo leen jaay bu leen neexee bu leen naqaree dinañ ñëw jënd ko baytaala ala fu leen dégg ñu jënd. <laughs> laay jërëjëf sëñ Cheikh Ibrahima Ndiaye leeral bi amati na solo fi ne yaa ngi delloowaat nit ñi parce que yaa ngi xam xam bu soññaat doomu aadama yi ñu xam ne wàcceeluwaat ci suñu borom xam ne lépp sa mi ngi tënku ci suñu borom la nga waxoon keroog gannaaw koy ñaan yàlla lay ñaan ji kon ñaan ji yàlla benn yoon fi mu toll nii. waaw bi mu bindee doomu aadama. laata mu ko wàcc lépp loo xam ni day manipuler wu. nit ki bi muy juddu yàlla da koo tëj nit bi ko yàlla bind bi muy door a juddu ak muuma la waxul seen maxala gisul lafañ la doxul tëdd na tekk daanub liir léegi ñett jikko yooyu yooyu lay indaale ci àdduna bëri du gis lama ñu du wax tànk du dox suñ borom mu koy wàcce étape par étape lenn lu ci nekk lu yee ko ci melokaan yoo xam ni ump na jàmm ki jaar ak yow foofu yëkkati la ba nga taxaw wax loola mbax loola manipulé la ba nga màgg nga am soxla mbagu fa jëm feneen xamul li xew hmm? doomu aadama nag ñaari yoon la ko yàllay woo bu ko woowee ci àdduna ak bu ko fiy génne woo ko dafa foowaat <laughs> yaa ngi dégg li ci diggante bi nag nga seet ko nit ñi mhm. soo góorgóorloo def ci yitte li mu fi bëgg lépp mën nga koo def bala nga fa ndax sax fi mu amul mhm. waaye ci biir jëflante gi nag lenn lu ne daa am xam-xam ñaan yàlla daa am xam-xam alxuraan dafa am dafa am xam-xamu boppam fi mu tey jii su ma doon leeral alquran ak ismul azam ñoom ñaar seen seen seen seen seen liggéey ci ci jëmmi doomu aadama day mel ni tey nga yor sa téléphone gis nga téléphone bi boo ko waree xam ne lii ab téléphone la téléphone bi dafa am benn réseau bu koy connecté nga mën cee woote wuy ci donte moo gën a seer ci àdduna fii dugalee ci piis mu am réseau du dox ya'lamuuna bi rëbb la ñuy doon ci biir aaye alquran yi moo tax tigo mën a woo tigo once mën a woo once espresso mën a woo espresso ñu manipulé wu satali bloqué leen di kaamil bi moo tax ismilaal bu ne am na fu jëm am na la muy dox waaye tur yàlla leen adduna bi borom xam-xam yi ci nekk yëpp soo leen dajale woon benn jaamu yàlla bu yor turu yàlla mën na leen a manipuler di leen war a def ñoom yaa dégg xam-xam yi yëpp mi ngi balance lañu ci alquran ba demee ci fatihatul kitab laay ju njëkk ja bismillahi rahmaani rahim fi mu ne ab dëkk lu ñàkk ñàkk ñàkk ñàkk ñàkk xiif xiif xiif bu ñu yoroon fatiha di ko sikkar xiif ba jub xam nga iwaaj. iwaaj. wala xam am na loo ma bindeef la woon mu nekkoon si jamono yonent Yàlla Muusaa. moom problème yàlla da koo bind iwaaj day xëy suba ba ngoon di for di lekk. bu mu dajee Muusaa Muusaa soxla ko am nu mu ko war a laaj waaye iwaaj tëlu ko ndax xiif du lekk ak nag Muusaa wenn mburu la jël jàng ci bismillaahi rahmaani rahiim ci bopp bi jàng bismillaahi rahmaani rahiim ci bopp bi. jox ko ewel mu lekk ko bi ko ewel lekkee waxtu ko ko Moussa joxe woon te bis ba ba bis ba dellu si waat xiifatu fi yàlla mi sàkk jàmm nag ni bu ngeen yeewoo balaa kenn def dara nga wax bisimilah rahmaan rahim booy lekk booy naan booy bax looy commencé waa suñu borom kay xam na bu dee ko toll ni ewaj nga xam ne mën naa lekk adduna bi moom lañ mën a ndaw ci bismillaahi rahmaani rahiim mu nekk ko suur ñu digal ko jaam ñi jaam ñi xamuñu ci biir mën nañu ko wax moom dara nañ koy manipuler réew lu ñuy si kar basma la ñoo gën a ñàkk euh, génn ci ñàkk ak moo tax nitu yàlla yi dëkk bu la musaan a gën a naat ca mag ña boo demee seen sirru moo nekkoon ñu ko daan séddale ñëpp di ko liggéey bu guddi jotee ñoo nañ ko war a dellu si réew mi li koy defar moo leen fi bàyyi par réew mi waaye doomu aadama ci boppam nit sax li koy defar la bàyyi ndax yàlla mi la bind gën laa xam lépp lu mën a doon ci mbindeef yi nit ku dul yàlla xamu ko sax digal nañ la digal nga koy xeeb topp nit ñi nag lu nga bëggee alal tuubal istifaar day maye alal nga xeeb ko tëb sëriñ si rek ñu naan la ay safasu nag ñu la ñu tombalal yaa ngi dégg yàlla bu bëgg yàlla tax koo julli jul dee may alal sa jul yi lu nit am nga def ko ëppale yàlla wax ku la neex tooñ ku la neex saaga bëgg nag ëppale ñëpp yooyu baytaal daa mënta ne hmm? àdduna pexe ci la waaye sëriñ Hmm? waaw jaamu yàlla nag bu demee ba moom génn ci jaamu yàlla mooy génn da bëgg a génne boppam ci jaamu yàlla yi donte mënu toog sax génn ci jaam yi hmm. waaye jaamu yàlla boo gis mu wéetu la jaamu yàlla daa bëgg génn ci jaamu yàlla yi yàlla nag ku bëgg a génn ci moom ba ko boppam waaye li muy dugg seet la jaam yi hmm. nga bëgg cee ëppale te mu ngi woo daanoo jaam mu ngi woo jaam neex naa dégg <laughs> waaw dañ dem ba ci kanam rek. <laughs> macha allah Serigne Cheikh Ibrahima Ndiaye alxuraan ci leeral bi amati na solo macha allah mais yaa ngi koy wax léegi nii est ce que tey jii bu ma la laajoon Serigne Cheikh Ibrahima nekkoon ndax am na secret yu gaaw yu gaaw ci may wërsëg doomu aadama. waaw may wërsëg wax naa la ko nee naa la asbaabu risque dafa am ay aaya yoo xam ni boo ko takkoo da am wërsëg. alquran nit dafa cee am ay saar yoo xam ne boo ko takkoo da ngay am wërsëg wërsëg suñu borom da koo bind ak nit ki wax ko ni ko man maa ko yor man yàlla waaye nag la tax ñu koy ñaanlu la tax nit ki di di bàyyi la tax nit di defi effort yooyu yëpp ay defi effort la boo xoolee waaye wërsëg moom suñu borom digal na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni nit dina bokk ci way ñàkk yi takkoo tur yàlla takkoo yàlla ba mbooleem way ñàkk yam nekkoon mel moom mu booleen yor leen ngir darajay zikrullahi ngir darajay tudd yàlla gi mu doon tudd yàlla maanaam ba nekkoon ci dëkk yoo xam ne dëkk ba am ni dara mm-hmm. sa guddi yow doo nelaw yoo sa di tudd yàlla yii ma la wax nga koy liggéey subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa allah wallahu akbar wala xawla wala quwata illa billahi al aliyil azim taxoo ko di ko sikkar di nga dem ba dëkk ba ñu ñëpp dina ñor yow sa wërsëg ndax dafa am yoo xam ni ay décision yàlla yeneen yu muy jëlal jaam ñi ni ngay nekkee ci école jàng nañ ñëpp pare nga génn doon benn élève boo xam ne yaa ci doon président ñu ci des ñëpp nag ñi mën nañoo doon ministre doon député doon jàngalekat enseignant waaye président moom kenn koy doon waaw noonu nag école bi génne ñëpp ñi doon lee noonu la ismulaay ansam yi di yëkkatee maqaamay nit ñi ak seeni darajaat ci seen biir waaw jamono si kar lañ toll daal waaw ku si kar mos ku dem ci kuy si karit bu la dimbalee nga mos mm-hmm. jërëjëf sëñ Cheikh Ibrahima Ndiaye ci leeral boob ba tey xam naa ne beneen damay ñëw ci jinne waaye damay faral dégg ngay wax baatu asnaawul usna ndax asmaana asmaan mooy téeméeri tur yàlla yi rek téeméeri tur yàlla yi nag tur mu nee ci waaye am na ci biir tur yoo xam ne moom la seet yama xëy am buñ dékkee drapeau bi tiim nit yëpp bismillah al lañ ci bind drapeau yàlla nag bëgg te drapeau bi yonent bi ñaari drapeau fa am drapeau bi nga xam ne yonent bi moo ko war boobu laa ilaha illallah muhammad rasulullahi lañ ciy bind bind ci téeméer tur yàlla yii waaye drapeau bi nga xam ne nag drapeau suñu borom la muy tiim jàmm yëpp di folote ah boobu nag ismulaal ahsan lañ ciy bind bàyyi taala waaw seet ko jar na seet ba dee hmm. ndeysaan <laughs> jar na seet ba dee kon nag nañ seet ba dee rek kon <laughs> macha allah rabbi jërëjëf sëñ Cheikh Ibrahima Ndiaye alxuraan ci leeral bu am solo boobu macha allah rabbi bokk na ci tamit dañuy faral di dégg naan ay nit kii de euh, jinne moo ko may lii mais est-ce tey jii fi ne am na jinne yuy sabab alal. waaw jinne daal doomu aadama yi sabab alal daa nag am na lu mën ci nit am na ñuy xam-xam. mën nañ laa teg ci ay yoon ndax lu ne ko wax ni nga ko jàngi ci téere yi jinne yi mën nañ laa teg ci ay yoon mën nañ laa wan ay secret am nañ xam-xamu sarax am nañ xam-xamu faj am nañ xam-xamu tegtal la loo xam ni soo ci tegtaloo yàlla dimbali la waaye doomu aadama balaa jëfandikoo yu mel noonu war naa sori lool ci diggante ak boroomam ndax nit ki lépp loo xam ne ñu ngi koy jëlee ci jinne yi mën na ko defal boppam hmm. waaw ndax xam-xam nit ñi la gën a jege yeneen yi yonent yàlla aadama bis bi nga xamee ni suñ borom ci la ko roofal ruux ci bis bi rek mu hmm. ngi jàngal malaayka yi lu ñu ci bis bi rek mu ngi jàngal malaayka yi lu ñu di ko jàngal junni wa allama aadama asmaa kullaha nga xamante ni si ñun boo yi am tur yëpp moo ko jàngal malaayika yi ñu xam ko waaye suñu woon aadama ñoom duñ ko xam te ci bis bi mu juddoo tuppee waale na tuppee waale na moom aadama dara jooy xam loo xam ni malaayika yi nekkoon ak yàlla ab ñu mun tëddi xamuñu ko yaa ngi kon bu ñu yàlla jaarale ci moom ñun ñu wàcc mu dénk ñu adduna bi ñu doon xalifa yàlla représenté ko fi wax dëgg yàlla moom war nañoo wër suñu bopp feneen fu dul ci kaw ay junneeg ay rabam yu seen xobu baytaal macha allah sëriñ Cheikh Ibrahima Ndiaye ci euh, leeral bu amaat solo boobu noonu macha allah rabbi bokk na ci tamit ñi ngi am ñu bëgg xam ne wax dëgg yàlla ndax tey jii tudd nga ko wax nga ko sànq tey bu fekkente ne am na ay jullit yu nekk ci ay yéefar di fa yëngu ci wàllum njaay est-ce que tey ji am na secret yoo xam ne baax na ci ñoom te parce que ni nga ko waxee ndax secret bu ci nekk ak réew mag mu nekk ak tur nit ki yëpp dafa am na secret yoo xam baax na tey ci suñu mbokku moodu moodu nekk ci xam daal dañoo nekk réew moo xam ni am na ñu dul jullit mhm. ak ay jullit yu ñu ngi ko jaamu yàlla fi ne Sénégal gii. boo ko dem Sandaga la ngay liggéey Italie mu ne ko liggéey Sandaga jàpp ñëpp xam nga jil <laughs> yàlla yu ñu ak wa yanqalibu ila ahlihi masruran yooyu soo gisee duma leeral aay yam àndal ndax loolu ab sangat la dañ daa ànd ak sangat moo tax boo ko dee liggéeyal nit ki da koy génneel yi war di werd moom mu koy werd waaye sangat bi muy àndal nag da koy bind liggéey ko jox ko waaye ñaar yi ma la wax bépp jaaykat boo ko defal baytaala ak fu mën a nekk ci adduna di jaay moom problème mu marchandise muy jaay la mu muy jaay la am waaye doom problème mu ñu ko jënd baytaala lu mu yor te loxoom dina ko jaay <laughs> bi moom avant bi wër la même boo jaayul sax nekk ci am réew ñu génn tur yàlla yii ma la wax ni mooy ànd ak ñaari aay yii liggéey yi kon ni mu ko waree jox la ko nga jël sangat bi jëfandikoo ko wala ñu jox la sekkar bi nga koy werd moom boo ko mënta werd ñu werdal la ko bépp nasaraan boo nekkal di jëflante moom fi wax ak jëf lépp lu ngeen waxante dina ko defal yooyu ñoom looloo ko tax a jóg moom daal ñaar yooyu moom looloo leen tax a jóg looloo leen tax a jóg dañoo ànd ak sarax sarax bi mën naa koo génne wax waaye émission la te xam nga yii dañu nekk ay yoo xam ne daa bokk ci liggéey bi ci biir du ko sànni noonu rek mu daal doomu aadama bu nekk ci biir yéefar yéefar nag nee la man dama koy defal gars yi ni sàmm bi am déet waaye yéefar la la secret waxoon moo taxoon jóg yaa ngi dégg waaye daal bépp réew boo xam ni am réew la moo xam ne ay yéefar dañ faa bari nga fay jënd ka jaay laay yi ma ne soo ko yoree problème marchandise jaay ngay am waaye du ñu ko jënd si waaw boo ko jëfandikoo boo koy yëpp sa kaw la ñuy boo jaayul moom kenn du jaay. waaw ba dégg nga te loolu jaar. yii noonu la ñu ne yoon secret yi noonu. Mm-hmm. mboolem nit ngay am bés bu yàlla sàkk fi mu nekk. Mm-hmm. waaw kenn mënut a teem mu dox nag. Mm-hmm. bu bu ñu ko doxalee ni liggéey bi waree rek. defal la ko jox la ko. yow foo mën a nekk di jaay dama ne moom boo xëyee yaay am problème indi bagage yoo jaay waaye bagage yor moom dina jar ndax nit ñi ko jënd si waaw. macha allah mu doon lu lu am solo ndax fi mu ne suñu mbokk yi fekkat faaw ñu leen bàyyi xel ndax ay jàmbaar lañ loolu tax dëgg yàlla ñu ngi ñuy topp ñoom itam saa su ne su ko defee rek ñoo ngi bàyyiwaat xel bu baax a baax ñoom bàyyi Assane Serif Assane ak euh, wax dëgg yàlla sama njaween bi macha allah rabbi mais sëñ Cheikh bu may laaj tey jii parce que comme euh, teggi moteur teggi teg moteur dégg nañ ko fii dégg nañ ngóora li la ci suñu borom may est-ce que tey jii danga nga am secret ci turu yàlla yi boo xamante ne moom ngay dimbalee doomu aadama yi ci wàllu ngóora googu tam parce que ngóora bi ni ko gars yi di apprécier dafa dafa doy waar. waaw ngóora bi daal wax naa la ni la ab secret la mu ne dama la ci waxoon daaw laa la ci waxaat ren ndax ngóora bi ma daaw rek laay wax. man bi ma yor dëkk ci lii dama la xar moom tàpp buñ ko fi indee dama ko joxee mu naan ko jóg dégg am nag alquran bi nekk ci biir liggéey la loolu ndax wàllu ngóor moom moo jaaxal jël di ko fasal fasal leen <laughs> lii laaj lee waaye damay daal moom témoins yi bari nañ ci vidéo yi ci ak nit ci defi audio témoins yi bari na trop ci loolu waaye bi ma ci yor man dama ne képp ku dul koo xam ne da nga judduwaale nguur am ci jafe-jafe ak nu mën a doon boo woowee leeral ma ko ma génn la ci solution bu leer nañ ñi fajal la ko moom wér ci kàttan yàlla waaw boobu foofu laa ci yem. mu doon lu am solo kon ñoo ko bokk déggandoo yi tamit xam naa ne lool itam fi mu ne daanaka euh, tubarkàlla daal la wax rek ndax gars yi moom teggi moteur boobu ba nekkoon ci débat boobu lañ nekkoon rek mais man dama ne woon secret bi daal laa bëgg xam waaye xam naa ne gannaaw secret bi moom da ko dëxëñ nanga woo cee wax secret bi moom suñu ëpp na ci émission suñu mbayeen ba ca baween ba ca Allemagne mi mi mi ngi lay nuyoo waaye ak Moustapha Cissé moom it fële ca Espagne ñi ngi lay yóbbante ay nuyoo tamit bu baax a baax macha allah rabbi ak uh, sa sa sa waajo ca Allemagne moom itam mi ngi lay nuyu bu baax a baax nee na mi ngi lay woo fan yi waaye xam naa da nga xaw a xat moo tax sëñ Cheikh xanaa question bu mujj rek laata ñuy laal ci actualité bi benn doon ko jeexalee rap sëriñ si ci réew mépp ku ñuy fajal rab danañ la génneloo xeetu sarax bu ne te ba léegi gars yi ba léegi mënaguñoo am solution Serigne Cheikh yow nga toog ne ku am rab cas urgence la ci yow fu mu mën a nekk na ñëw man léegi loolu laa bëggoon nga wax ma lu tax nga def loolu ak lan. waaw rab euh, nee naa la mooy jinni yi rek noonu la ñuy wax rab euh, ki koy dindi ci doomu aadama nag. faw mu am ci ndigalul yàlla jaam bi nga xam ni mooy jëflante ak jinne yooyu faw mu am ci ndigalul yàlla ndax seen doole daa bari nit bari na lu koy lor loo xam ne doomu aadama fi ëpp doole ne tey jaam la ndaw la waaye ku matt nga faatu waaw li muy bàyyi ci sa biir yaram rek moo tax jinne yi kasaalika dafa am lu ñuy def doomu aadama noo xam ne loolu moo koy lor moo ñoom nag ñi koy faj xamuñu ni du yëpp ñoo bokk luñ leen di éliminer am na ñoo xam ni boo dëkkoon di nopp di ci nopp nit ki téeméeri at di ci jàng alxuraan it da koy gën a sonal rek waaye julli ji <laughs> du xam ne yàlla ñuy daw am na ci yoo xam ni xam-xam bi nga xam dañ koy xam foo xam ne ko mën a génn ci nit ki lépp nga xam-xam foo jëm. kii la ci waaye. yaa ngi dégg ni ñun nit yàlla boole xam-xam bee ñoo ko seq ñoom daa am ñu xam am ñu xamul. bala na ñuy wax naan bu njëkk bala nga xamoo nag ñun ñii aay nga xam yëpp dañ ko wàccee ci ko asamaan si waaye rab boo gisee mooy la am na ci yoo xam ne cas exemple mooy ñi xam laa la wax. dañuy gént di jëflante ak seeni rab yooyu laa xam de waaye ñi nga xam ne ne dañuy daan ay jënd ak ñi nga xam ne dañoo def ak ñi nga xam ne dañ leen waxtu loo dañ leen crise loo dañ leen di manipuler jigéen ñi nga xam ne dañ leen sonal yooyu yooyu moom kenn nit ku ci nekk ak rab wa ci nekk ca moom lañ koy fajee yii gis ci réew mi nag bokkut ak fajaram ndax dafa am secret yoo xam ni soo ko jëfandikoo taxaw wala nga génn ci ñu amee rab yëpp ay yoo ko daanu mën ngaa dajale téeméeri jigéen ñi pël-pël ji te mënoo ko kenn nga mën nga yëngal rab yi nekk ci ñoom ndax daa am tur yu yëngal rab kon kay xanaa mbaalu gars yi moom lañ yor fi ni ci dëkk bi fi ni waaw am na sarax yu yëngal rab am na tur yu yëngal rab def ko ci def ko ci bërëb bi ngay dajal nit ñi heure bi ñu laalee loola rek donte da koy wax ci suuf dégg ko sax ñu fa am rab yëpp dañuy yëngu loolu adduna partout dans le monde yaa ngi gis ñu koy waaye loolu doon faj rab de faj nit ku am rab wala nit ku dof ba wér ni cocc nekkat ci nit ñi dama loolu ku amul xam-xamu du pexe loolu du tappale loolu du jàng sax ay kamataraan yi dafa am ndigal luy ànd ci loolu nga mën door ko mën a ma def la waaw ñun nag yàlla ñu fi defal sutura euh, bëggoon naa sax am ndaw soo xam ne mi ngi dëkk fii Mermoz moo woola ndax daan daan déglu la meñ wi suñu benn soxna bu nekk États-Unis koo fi yebaloon boole ko nañ ko ñaari traitement wax yàlla ma ngay sant yàlla te itam ay mbokkam woon ma ni ma wér na nee naa ne ñu wëragul nag mm-hmm. wëragul man ñu ko xam naa ne wëragul <laughs> seen yaakaar a rek des na waaw yàlla na ko yàlla teggil loolu ko dal euh, noonu moo ko waxee daal noonu la amee bala ngaa mën a faj yooyu faaw nga am ci ndigalul yàlla waaw ñun nag am nañ ci tuuti man-man ndax rab kenn du naagu ci moom ndax bis bu nekk ak yaa ngi ciy waaye kenn ku ne bosam bëgg tëg ni ñuy ni ñuy liggéey bosu morom waaw kenn ku ne sa bos rek ndax boo dajee boo xam ne bu jullit la daa am noo koy fajalee borom te dajeg boo xam ne yéefar la daa am noo koy fajaleeg borom boo dajeg boo xam ne bu mag la daa am noo koy fajaleeg borom boo dajeg boo xam ne borom jëliñ ko fii ci réew mi daa am noo koy fajee ndax ñoom lañ ñoo xam ne kenn lañ tëlluñ seen yàttuwaay waaw loolu noonu la demee jërëjëf seen Cheikh Ibrahima boobu itam leer na xanaa rek fi may wàccee kàddu gi rek mooy sarax chaque jour wax nga ci njëriñu sarax lu bare bare bare bare mais bii dama bëgg xam sëñ Cheikh Ibrahima Ndiaye li moom sa ay saraxam nangoor yi te ay saraxam lépp mi ngi koy def ci ay xeetu njàm jëmal ko ci jéem jaami yàlla yi lan moo waral loolu ban secret moo nekk foofu noonu ci loolu noonu. waaw sarax moom dafa bokk ci dimbalul doomu aadama Sénégal loolu yi ñuy wax ci télé yi mu koy dégg loolu amul hmm? nit ki dinañ ko tuural direct ci sarax. nee naa la fii léegi Ibrahima ba ko yàlla di yët indi nu mu remplacé doom ji nu indi am xar mu rey ko tabaski ñaata xar la rey ci réew mi xar mun ñu la jël ko saraxe te dara ñu tuur lu koy defal dañ koy tuural deret nit bu faatoo luñ koy reyal fii ci Sénégal yaa ngi moom lu am la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waajuram wu góor bañ koy bantal ci ay limi juróom lañ ko génne ndax réew mi mën fee des lu mën a téeg réew nag aajo taxut a wax waaw suñu si dañuy bari ñuy wax rek nangam nangam waaye saraxu deret lu wér lu am la te bokk na ci sarax yi gën mag ci sarax yi nit di def sëriñ bu koy wax defal attention moom xam ni daa am xam-xamam fu mu rek waaye ki xam ne xew te xam li manipuler monde bi xam leen lu ci ëpp ci deret lay jaar ci sarax yooyu sarax lu ñuy lekk am na ay fruits ay dugub ceeb lépp ñu ciy dundee rek mën nañ ciy génne sarax saraxu kondaay am na lépp lu di sol alal dinañ ci génne sarax ak or maanaam kon na nga ciy dégg ni suñ borom lépp lu mën a jëriñ doomu aadama bi mën na koo génne sarax sarax nag dafa am waxtu moo koy génneel nit ki am ñoo xam ni taamu waxtu lañuy dañuy bis dafa nit ku nekk ak na la jig am ñoo xam ne seen waxtu mooy dox am ñoo xam ne seen bis mooy dox bi sàngam ci ngay defar seen mbir yëpp fu ne ñaan dafa am sax bis nit ki bu lay ñaanloo nekkul bu lay woo mardi rek nga commencé nekk na déedéet da ngay xool tabiaa yi xool léppam waaye itam da ngay xool ban bis moo méngoo ak guddiwam nga ñaanal ko ci bis boobu ni ñu ko séddalee guddi nangam guddi altine guddi ajjuma guddi alxames guddi gaawum kenn ku nekk am la ko mën a defal doomu aadama noonu la doomu aadama yi wutee ci yooyu baytaala waaw mbirum nit daal daa am xam-xamu nit bala ngaa mën a doonub sëriñ da ngay xam nit ci boppam lan mooy xam-xam bi tënk nit wax naa la ko fii ci émission te li ñu koy jàll daa bari lu bari ma waxtaane ko wax naa la fi adamiya ak insaniya ak ruhaniya ak adamiya nee naa la suuf si ko tax a jóg boo gis mu faatu jëmm ji biir suuf la jëm ruhaniya nee naa la mbirum yàlla la koo gis mu faatu rooga ci kaw la jëm insaniya nag mooy mbirum adduna mooy nit ko bëgg a dimbali insaan yooyu bi ñu dimbali jëmm jëg li ci aju loolu nag ci diggante ruux ak yàpp la nekk ba taala lu ñu manipuler ba jàpp ci doomu aadama loolu nag boo ci amul xam-xam nit xamoo ni muy yokkee xamoo ni muy màggee mu ngeen laa toog fii mel na des nga gis waajur mu tiim ab liiram di ko jub ba mu doon jëmm benn bés ci màgg gi na koo leeral ci jëmm ji waaye kooku li xam ci doom ji bëriwul waaw xam-xamu ñaan xam-xamu yàlla la wàllu yàlla la boo ko déggee rek mu nekkee xam lu bari bay taal jërëjëf sëñ Cheikh Ibrahima Ndiaye xanaa rek euh, kaddu yu mujj yi lan lay doon ak message bi rek su ko defee ñu daal di yu mujj yi daal doomu aadama yëpp soññ leen nag ci ak ragal yàlla ak wéetal ko ak di ko fàttali ko lu bari bàyyee ko seen bopp te ko kenn ku nekk loo mën ci lu baax nga def ko ci sa digganteeg sa morom te xam ni àdduna yàggul te jeex na ba pare rawat na jullit yi ñu gën a doon benn te indi lislaam yi dëgg ci suñ biir te wàññi caaxaan yi lumbaay yi loolu man gis-gis bi ma ci am mooy jëmewu fenn te ab jullit daa war a jëm ci boromam baay taala jërëjëf Serigne Cheikh Ibrahima Ndiaye alxuraan sant ko bu baax a baax gërëm ko ñaan ko yàlla suñu borom doole koo taxaw doole yéegali mboolem mébét yi nga xamante ne rek naalal na ko askan wi waaye sant itam bu baax a baax mbokku internet yi nga xamante ne téléspectateurs yi nga xam ñoo ngi ñooy topp xam bi kenn ku ci ne ñu lay ñaanal rek fa mu nekk lay bëggam ak yéenam ak mébétam yàlla na yàlla sama borom jàppantal lépp ci daraja yonent yàlla Muhammad di leen di wax ne rek mën ngeen a suivre mbooleem